Eh, mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diiwaan juróomi waxtu jot na ca bi dina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Euh, li ci gën a fës daal na ci rek euh, bokk fièvre euh, Ebola bi ñu ne nag gane si na Guinée Sénégal war rek jël matuwaayam tax nag ne ñu lii ñu war ngir rek ñu jël matuwaay ci mbas mi dinañ ko daal di nag def gën a rek renforcer lépp lu aju ci wàllu nag frontières yi loolu directeur prévention daal na koy rek xamle tey jile dinañ ko teewlu ci ndorteelu xibaar yi beneen bi ba tey ci wàllu wérgu yaram di feebarub mbas mi diggante démb ak tey juróom benn nit daal di ciy faatu ñaari téeméer benn ñoo ko daal di nag wàllante cas yi daanaka foo dem ci Sénégal ville yu bëri boog euh, daanaka daal di na fay laal dinañ ci daal di jukki ci point du jour euh, wàllu sante googu nekk ponk wax sa xalaat muy nag euh, mbas mi jëm itam ci wàllu Ebola bi matuwaay yi ñu ci war rek jël ba ci sax jeexital yi mu daal di nag am ndax nee ñu corona bi mu ngi dugg nag ci lekool bu Sénégal lu war a toll ci ñaar fukki ci ay jàngalekat personnel enseignant bi nee ñu ñàkk nañ ci seen i nag bakkan ba tax CUSEMS di daal di yëkkati ay kàddoom nee ñu daal ay xajal xajjal xajjal euh, xaajaloo dafa daal nag am ci anam bi ñuy séddale euh, matériel protection yi Abdoulaye Ndoye ak ñoom tey jii daje nañ ci dinañ ci daal di jukki ñoom sax ba tey euh, nekk ci ab mouvement ngir sàkku seeni nag indemnité examen grève total la ñuy daal nag amal ni ki nag ëllëg ak gannaaw ëllëg ak yi débrayage bu fukki waxtu jotee tey jile dinañ ci daal di ànd ak Babacar Samb dinañu wax ci mbirum usmaan Sonko itam ak ñu bari ñu ca teg loxo ne ñu fanweeri nit diggante Ndakaaru ak Ziguinchor Euh, daanaka yoon teg na leen euh, loxo parti Pastef nag di ñaawlu li ni mel euh, jàpp ne xoqatal dëgg la dinañ ci daal di teewlu ki nga xam ne nag mooy président cadre yu Pastef ci biir xibaar yi ci ponk wax sa xalaat lay doon arrestation yooyu ñu daal di nag nemmeeku ak kàddu yooyu ñu ca daal di nag yëkkati ba ci sax njàngatu Ibrahima Booxum baaxum mii daal di analyser daal tension politique bi am jamono jile naka lañ ko daal di jàngatee tey ji itam mardi gras dinañu daal di nag fàttaliku cosaanu nag xew-xew jeexital ba mu daal di nag am ci kooru chrétien yi ci kanam ñu daal di ci nag jukki toftal ci yeneen xibaar tàggat yaram laata ñu ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram-fànce Guinness kiis lay doon. Adama euh, ci kàddu gi mbokk yi dañ koy daal di nag euh, doore ak feeñ bu mu feeñaat moom fièvre hémorragique bi ñuy wax euh, Ebola ca Guinée Sénégal nag fas yéene teg matuwaay yi war gën koo dooleel nag rawatina ci wetu frontières yi ci suuf si ngir rek dugg gi génn gi ñu mën koo daal di saytu bu baax a baax directeur bu prévention xamle na ko tey jile jàpp ne nañu jëlee nag mbas mi en charge noonu la ñuy daal di def ak jàmmarloog Ebola bi docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ñu déglu ko. ci micro Habsa Elimane Wane. ma xamal leen rek feebar bi mu ngi amee Guinée Guinée fi mu fekk ko mooy ci yeneen frontière côté liberia lañ ñu wax waaye nag terewul Sénégal ba tey def euh, def ci may gët feebar boobu dañ ko mos a may gët sax depuis plus de juróomi at léegi bi feebar bi amee woon Guinée ba mu am benn cas Sénégal feebar boobu dafa fekk dafa bokk ci li ñuy tuddee maladie sous surveillance mooy Ebola Ebola lu mel ni Ebola ay fièvre jaune ak Crimée Congo ak leneen ñoom ñëpp ñoo bokk benn xeet te Sénégal dafa jël feebar yooyu mu def leen ci site de surveillance sentinelle mooy dañ koy saytu bépp malade bi nga xam ne dafa ñëw am ay yenn mandarga yi dañuy saytu systématiquement mooy maanaam toujours lépp luñ la prélevé dañ ciy saytu feebar boobu kon surveillance bi dañ ko mos a renforcer mais surtout actuellement bi OMS waxee ne que feebar bi am na Guinée rek te autorités yi dañoo wax ñu surveillance bi bi surtout nag plan terrestre mooy maanaam ci frontière terrestre yi mooy frontière ci suuf ak lu mun jóge ci avion mooy ci jaww ji wala sax ci géej gi donc loolu mooy mesure yi nga xam ne mesure yi yi nga xam ne wax nañ ko te loolu moo ci am donc surtout lu ci am solo mooy surveillance bi mooy sax est-ce que ci biir réew mi am nañu ay jumtukaayu surveillance jumtukaayu surveillance dafa am ci suñu site sentinelle yi bépp feebar bu ñëw képp ku ñëw tamit loolu dañ lay saytu ci mbir moomu te agent de santé yi aussi xam nañu feebar boobu am na dégg nga jot nañu information bi euh, dinañ ci dañ ci gën a bàyyi bët daal Euh, ba tey ñu daal di desandi ak euh, waa kër docteur ba ci situation bés bi ci feebaru mbas mi Covid 19 bi juróom-benn nit daal di ñàkk seen bakken diggante démb ak tey am ñaari téeméer ak benn ci ay euh, cas yu bees yu ñu nemmeeku cas yi nag la ñu ne daanaka réew mi foo dem daal na fay rek am fukk ak benn ci Thiès nemmeeku nañ ko juróom-ñaar ca Tëngéej ci leeral yeeg directeur prévention docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci situation bés bi ñu teewlu ko. fukk ak juróomi test yi ñu def ñaari téeméer ñaari téeméer ak benn ñoo ci positif ñaari téeméer ak benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñetti fukki cas contact amuñ ci benn cas importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ñi nga xam ni ma baamtuwaat ko tey ci bësu talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru février mi nekk ministère de la santé et l'action sociale narologique yi may waajalin ci junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom fukk ak juróomi test yi def ñaar téeméer ak benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñetti fukki cas contact amuñ ci benn ka importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ñi nga xam ni ñooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee commune de Thiès am na ci fukk ak benn juróom-ñaar ci Rufisque juróom-benn ci Fatick ak Saint-Louis juróom ci Dakar Plateau Kébémer Louga marist ak Mbour ñeent ci Mass Kër Massar Wakaam Tamba ñett ci Diamniadio Mamel Mermoz ak Sacré-Cœur ñaar ci almadi Kolda Kounoune Liberté 4 Médina Ouest Foire Yoff Touba ak Ziguinchor benn ci Mbirkilaan Bopp Cité Biagui Cité Magistrat Cité Tak Takko Jaxaay Jëppal Fass Fatick Goudomp Grand Dakar Hamo HLM Liberté 1 Maka Koulibantang Matam ñaari Tali Parcelles Assainies Popenguine Sicap Baobab Sicap Foire Sokone Tivaouane ak Yombal ñaari téeméer ak fanweeri malade si ñi nga xam ne ñi entré woon hôpital ak ñu toppoon ci biir kër yi ñu ngi am tan te dinañ génn tey bis yàlla àndee juróom benn fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñoo nekk euh, ñoo jot ak génn àdduna bésu démb altine fukki fan ak juróom ci weeru février 2021 ñeneen ñi des ci biir kër yi ak hôpital yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak benn ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci kaa ñi xam ne ñoo amoon doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ki la ñuy daal di nag tàbbe eh, ci lekkool bi nga xam ne moom itam mu ngi ciy jël wàllam ndax ne ñu gën caa néew ñaar fukk ci ay eh, li ñu wàññi ci ñu faati ci personnelu enseignant yi eh, kisam sa nag ñu ngay daal di nag àttu jàpp ne nag ñàkk yemale dafa daal di nag am ci anam yu ñuy jébbalee matériel yi secretaire général ba di Abdoulaye Ndoye daal di wax ne protocole sanitaire bi daanaka sàmmonteeg moom moom sori nañu ko kisam sa di ñaawlu teg loxo bi ñu daal di nag teg loxo ñennet teguñu ko lu leen rek eh, neex doonte ci ñoom bokk na ci ay jàngalekat Abdoulaye Diop. coronavirus bàyyiwul jàngalekat yi lu toll ñaar fukki ci ñoom daan nañ ci ñàkk seen bakkan li ni mel CUSEMS e daan na koy ñaawlu joxoñ baaraamu tuuma protocole sanitaire bu gàllu goose Abdoulaye Ndoye secrétaire général bu cadre unitaire syndicat enseignant moyen secondaire. mais boo boolee lépp ëpp na loolu moo tax nag ñun waa Kisans ñuy naqarlu di dénoncer le fait que protocole sanitaire boo xam ne defar nañ ko mais matuwaay yu nguur gi waroon jël jëlu ko ndax dañu ne école bu amul ndox wala bu amul réserve ndox nañ ko tëj ñaata école Sénégal ñoo fi nekk amuñu ndox. lu ñu fayul ndàmpaayu BAC ak BFM itamit metti na syndicat bi donte ni njiitu réew mi joxe woon na ci ndigal. président de la république ci boppam nee na man kat mbirum ndàmpaayu jàngalekat yi damaa bëgg ñu fay waaye président bu demee ba wax ci tegu mooy dañ ko war a jëfee mais depuis le vingt presque loolu mënuñu ko jëfee moo tax jàngalekat yi arrêté nañu lépp te dañuy boycotter également évaluation biir Dakar te bu ñu continuer nii on va généraliser le mouvement. ca beneen wàll ba kisem si ñaawlu nañ tegub loxo ay sénégalais bokk na ci ay jàngalekat ba tax na ñuy woo ñu jëfee ak ak yelleef yi. jamono yii ci ginnaaw ak jamono yi nga xam ne ñoo ngi dund dafa bare suñu ay ñooñ ay jàngalekat mais au delà de jàngalekat yi dafa am de simples citoyens yoo xam ni dañ leen di jaay doole loolu nag ñu koy ñaawlu di wax gouvernement bi donc na arrêté loolu. ñàkkum enseignant yi xaay ci wàllum administration ak jëlum ay jàngalekat di yenn ci yitteel bu baax CUSEMS ñoom ñu bëgg nguur gi gën leen jox gëdd Euh, ñuy daal di desandi ak section CUSEMS bu ndakaaru sax euh, ñoom nekk ci mouvement jamono jile ne ñu nañ leen fay seen i ndàmpaay yi ñu leen war lool ci wàllu nag examen yi ñëw daal di def ba noppi ñu jàpp ne grève total ñaari fan nañ ko daal di def ëllëg ak gannaaw ëllëg lay doon tey jii sax jiital nañ ci ab débrayage bi ñu dakkalee njàngameek meeg njàngale mi bu fukki waxtu jotee constat bi ak Babacar Samb. SEM unité 19 bu débrayage bi nga xamante ni section Dakar bu CUSEMS daal dina koy amal ni ki tey ci talaata ji daanaka ñi koy yëg bariwul ba ci jàngalekat yi. du benn xibaar gu ñu jot jëm ci linimel jàngameex jàngale mi ñu ngi koy daal di wéyal ci anam yu mu gën a muccee ayib di kàdduk Biram Seen principal bu Sembile. ñun ci suba ba léegi ñun suñu classe yi ñu ngi fonctionner normalement correctement. ci ëttub lekkool bi ba ca bunt ba lim bu am solo ci ay ndong lañ ci daal di nemmeeku. waaw d'accord ñi di dajaloo di waxtaan. ñenn ci ñoom cours daanaka defuñu ko tey ci suba si ndax gisuñu seeni professeur waaye yële ndonk naanewuñu benn yoon ndox bile mouvement d'humeur waaw dégg ma ko woon ah, ko dégg démb. yow yaa ko dégg ñun dégg ma ko woon. baaxul de loolu baaxul. loolu baaxul suñu même Macky Sall même Macky Sall bu leen fayul. dañoo war a ñëw jàng parce que suñu avenir la. adduna la jàpp benn affaire rek moo la si mën a génne muy jàng. ak jàppalante boo jàngul xaw ma nan nga mën a génne ci àdduna suñu avenir la nekku seen avenir ñoom jàng nañ màgg nañ nekk nañ ay professeur yu baax macha allah macha allah léegi nag ñun tamit ñun ñun ñii ay xale. ñun nag jàngal nag suñu avenir la c'est notre avenir. ñun suñu jàngul ah comme ba champs léegi ñun suñu joxe loo xamante ne ñun jànguñu ko donc. problème mais ça va poser problème. c'est pour ça que le à la maison c'est vraiment important. bos parce que boo jàngee si kër gi loolu laa leen wax léegi boo leen jàngee seen kër gi di ngeen am résultat. man foofu laa jàngee foofu laa développé samay résultats. ñuy ñaawlu yile perturbation di duut baaraamu tuuma groupe Sénégal ak syndicat d'enseignants yi di fàttali ne section Dakar bu CUSEMS niki ëllëg ci àllarba ji ak gannaaw ëllëg dañoo fas yéene banque seen ab loxo maanaam grève totale. Babacar Samb ñu jaajëfal ko ñu dikk ci leneen wàllu nag Ousmane Sonko mbiram ak ñañ daal di teg loxo xayma gi mooy diggante Dakar ak Ziguinchor fanweer ci ay nit daanaka jàpp nañu leen parti Pastef ne ñu ñu ngay ñaawlu nag xeetu arrestation yooyu ñu jàpp ne wàllu sax enlèvement lañ ko daal di nag jàppee maanaam rek teg loxo ci nit ci sa coobare Bassirou Diomaye Faye mooy président cadre yu Pastef ñu déglu ko ak El Hadj Malick li ñu teg ay loxo ci ay nit buñ ko xayma war naa mat euh, fanweeri nit yoo xamante ne ñu ngi ci loxo ñu ngi ci loxo yoon. Euh, bokk na ci fukk juróom-ñeent nit ñi nga xamante ne ñu ngi leen tëj. Kër Massa Kër euh, Cap Manuel euh, juróom-ñett yoo xamante ne ci euh, manifestation yi amoon si bi ñu Bignona lañ leen téye ak coordonnateur départemental Pastef Dakar ak jabaru administrateur général suñu parti di Birame Souleye Diop du numéro deux mi topp ci bu ñu toftal ci gannaaw Ousmane ko waaw li xew nii du ci du ci parti bi foog naa ne ci ci Sénégal yëpp la xew ndax li xew buñ ko jàngatee bu baax a baax génnul ci li nga xamante ne moom la président di def depuis bu ñu toogee Sénégal maa ngi fàttali ne président Ousmane Sonko mos na fi araftu naan président Macky Sall bu mu ñëwee toog wax na benn kilifa ne Sénégal dictature laa ko fas yéene diriger dictature nag boo ko xoolee mooy lépp li nga xamante ne dañ ko teg ci benn loxo kenn nit muy buur di bumi di tëjaate di faataate di di di def lu ko neex di di di bàyyi képp ñi nga xamante ne ñoo koy teel tànk ak njabootam li xew nii nag provocation la te provocation bi yàgg na fi ndax président Macky Sall lépp li nga xamante ne ay acquis la woon sénégalais yi am ko président Macky Sall mu ngi koy jël di ko salfaañi bokk na ci liberté ak démocratie bi nga xamante ne Sénégal yàgg nañ ko xeex ba bokk ci ñi nga xamante ne ñi jiitu lañ ci biir Afrique waaye bokk nañ ci tamit yaakaaru ndaw yi ñi nga xamante ne tey ci président Ousmane Sonko lañ gis seen bopp ba tax ñu toog ba a bokk ak ñeneen ñi nga xamante ne tamit ci li rey espoir sénégalais yooyu Macky Sall def ko moo leen yóbbu ñu deewee ca géej ga wala mu am ñoo xamante ne sax xëy na toog nañu fii di fi xeex ba tabax seeni kër jàpp ne am nañu luñ ñu mën a tëdd chaque jour xëy na lu fa nekk ci biir seen sutura la Macky Sall xëy na fii tëj ay kër yu bare bare bare tegul dara seen loxo. ñu daal di nag euh, desandeeg mbir moom kii di Ibrahima Bakhoum mooy doon suñu ganu xibaar journaliste formateur bi dina jàngat tension boobu daal di nag euh, am ci mbirum euh, usman sunko ñu daal di nag addu jëme ci nag mardi Hijra eh, fukki fan ak juróom benn weeru tey eh, ci bésug tey gi eh, ñu koy mandargaal nag muy marqué li nga xam ne mooy ndorteelu li aju ci kooru chrétien yi di carême gi loole nag àdduna wërngal këpp la bile journée nag daanaka dañ daan faral di ci def ay nag euh, xumbateef waaye teewul am na ab banqaas boo xam ne dafay dellu ci euh, diine ndax mooy tax mu chrétien yi mën xool ci lan rek la ñu mën a natt seen i nag bopp ba li nga xam ne ci seen nag euh, bopp war nañ ko mën sellal ñu daal di koy def dañ ciy teelu leeralu ki nga xam ne nag mooy abbé Roger Gomis vicaire ci archidiocèse bu Dakar ci jokkoom ak Marie Rosaline Ndiaye ñëpp xam nañu ne que mardi gras mooy euh, bés ba mujj balaa kerkeen yi di dugg ci seen jamono koor ñëpp xam nañu tamit ne mercredi des cendres mooy bés nga xam ne catholique yi àdduna si yëpp dañuy tàmbali seen jamonoy koor nga xam ne dafa toll ci ñeent fukki fan alors ci mardi gras boobule nit ñi dañuy faral di déguisé wu maanaam dañuy gis euh, ki nga xam ne euh, du làbbe mu sol yëre làbbe wala xale yi sax ci lekkool yi ñu solal leen ay euh, ay ay ay déguisement li nga xam ne dafa méngoog li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy yaakaar moom la ñuy rêve nekk suba ah, carnaval boobu dafa ànd ak tamit ak li nga xam ne dañ koy lekk ci jour mardi gras de sax tur wi mardi gras dafa wane ni que vraiment euh, jour boobu lee Euh, lu lu bëre mën nañ ko def parce que bu ñuy dugg ci koor gi dañ ko war a bàyyi maanaam lekk ay nen métti lekk yi nga xam ne dafa niin comme yàpp ak leneen ak leneen comme crêpe ah dañ koy tàmbali lekk ci jamono yooyu la pour que vraiment bu ñu duggee ci koor gi ñu génnee ci suñu xel mën a jublu ci nga xam ne moom la yàlla santaane moom la bëgg nit ñi dundee ko. waaye mardi gras mënul yem rek ci ay fo reetaan kaf parce que man nañ ci mën nañ ci am ay jàngat. maanaam ci déguisement yooyu ak ci lekk li nga xam ne dafa niin balaa ñuy dugg ci koor gi. dafa war a doon tamit occasion moo nga xam ne ku nekk ci nun war na mën a toog seetaat boppam seet li nga xam ne ci dundam dafa mën nañ ko méngaleeg ak li nga xam ne mooy masque mooy masque yenn saa yi di nga nekk ak sa morom Ah, nga tëj sa kanam bi am noo mel ak moom am ni ngay doxaleek moom ku ci nekk war nga toog seetaat sa bopp xool lan nga war a mën a soppali ci sa dund boo duggee ci jamono koor gi rek loolu la ñëpp war a am comme jàngat ci Mardi Gras ñu daal di ci desandi karam bi nga xam ne war na door kon euh, ni ki ëllëg ci euh, àllarba ji ak nag euh, lii di doomu taal yi leen di defal ñu fas yéene nag tàmbale woor ñeen fukki fan ñeen fukki fan yoo xam ne wàllu ñaan dellu seen borom séddoo ak séddale lañ rek war a amal yenn ci ay ponk yi nga xam ne kër chrétien yi fas yéene nañ koo def bu baax a baax suñu naataango ca ndar dem na seeti yenn ci ay fidèle ñoom nag ñu ngi ñaan bu baax ngir lii di Covid 19 bi daal di fi jóge Saint-Louis Iftende ñii nga xam ne nii ñooy kertien wi diwaan gi ñoo ngi waajal bu baax a baax lii nga xam ne nii mooy seeni koor bi ñu tàmbali ci alarba gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bi ñu nekk àll mel sax la ñu nemmeeku ci ndaw kerceen bu jigéen bi nga xam ne nii ci paroisse Notre-Dame de Lourdes bu soor la bokk. waaw ñu ngi koy waajal kay comme suba la moom donc dañuy woor jubóog suñu boroom daal di tuub suñuy bàkkaar ak mbas mi. yaakaar naa ni dañ ñaan ci lu bari pour que mbas mi mën fee jóge waaye itam kii nga xam ne nii mooy Antoine Diogoye Diène moom itam di paroissien bu Notre-Dame du luur di ko waajal bu baax a baax te muy ñaan ñu boole xol yi te yokk ñaan gi ak jébalu bi. waaw di ko waajal ak xel mu sell xel mu sell bu wér te dund ko ci dundun bu sell ak suñuy morom comme ni ñu ko daan defee bés bu nekk. rawatina ci jamono ji ñu nekk ni nga xam ne ak mbas mi. ñu nekk di ko dund mu métti lool ci àdduna bi dañuy gën a yokk ñaan gi ndax catholique moom da ngay war di ñaan rawatina nag ci jamonoy koor gi nga xam ne ci moom la ñuy dëgmal bu subaa incha allah boole xoli bu baax a baax a baax ndaxte loolu moo ñuy war ndax ko xam ne katolik katolik moom ci loolu lay dundee. muy dellu si itam ci solo si nga xamee ni wàllum baalum baakaar ak bi séddale la ñu yor ak ñeneen ñi am na ko ci jamono koor. boole xol yi baalu baalante àq muñ. waaw jéddale ak boole lu ñu am. ndaxte boo mënut a woor sax dañuy santaane li nga am nga ciy joxe di ko xaaj joxe ko ndax loolu mooy yi nga xam ne mooy koor bi nga xam ne moo gën a dëggu. muy koor gi nga xamee ni daanaka daañu ko door ci àllarba gi tàmbali ko ci doomu taal bi nga xamee ni daañu ko rëdd ci seen i jë waaye itam ci woor bi ki doon jokkoo ak fii ci saint wi Yves Tendeng Sud FM Ligue des champions Ligue des champions lañ koy daal di nag doore diggante Barça ak Paris mi ñuy xaar euh, boobu nag ndaje ci mooy attraction huitième de finale aller yu Ligue champion yi euh, ñu ciy bëri jàpp nag fi mu toll nii PSG di Paris Saint-Germain moo gën a am rek chance daal di gagné match bi ñi ànd ak barsa moom la ñu gis mooy euh, loolu ak Messi moom du mën a nekk gëstu geeg Ismaïla Marcel Colly. joŋante bi nar dox diggante. FC Barcelone ak Paris Saint-Germain mooy doon attraction huitième de finale aller bu Ligue des champions ñenn ci ñu dajal ci biir Sacré-Cœur jàpp ne naam Paris Saint-Germain am na ay absents yu mel ni Neymar ak Di Maria moo gën a taxaw te dina am ndam ci kaw FC Barcelone. jamono bi ñu toll nii moom Paris moo ëpp doole Barça loolu moom bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul Paris moom malgré absence su Neymar absence su Di Maria mais man gëm naa ne war nañ ci mën défense kan ak kan la alors que tamit attaquant par yi comme genre Mbappé dañoo moom mënuñ leen je peux dire à à pour cent ni tey Paris moo am chance pour gagner vu la défense de ñi jàpp ne ci jamono ñuy wax ak Lionel Messi bu nekk en pleine forme FC Barcelone moo nar jël ndam li tey ci ngoon. match bi dina métti trop mais je pense que Barça mooy gagné quoi donc Barça mooy gagné Paris parce que boo seetee instant Barça. ak euh, forme bi Lionel Messi ñëwaat encore tamit équipe euh, bu am doole la quoi mais match bi dina métti trop. ci fàttali remontada 2017 mu ngi des ci xelu parisien yi ginnaaw bi Paris daanoon FC Barcelone ñeent bal ci dara ci bésu 14 février ci huitième de finale aller yi ci retour bi FC Barcelone moo ko daan par 6 buts à 0 ci match retour bi ñu amaloon ci 8 mars. Euh, beneen bi nga xam ne ñu ngi koy xaarandi diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Leipzig jamono ji nag Liverpool ak euh, xaw a taxawandi ba ñu daal di nag nekkee wara dugg nag ci Ligue des champions yi ci huitième de finale googu ale euh, moom Leipzig amateur yi nag daal di am ay xalaat yu wuute ci boobule match micro trottoir Ismaïla Marcel Colly. waaw boobu Liverpool laa jox victoire de vivre seen expérience quoi jour yu ñu yore ak niveau bu ñuy joué quoi. par rapport ak équipe allemande bi. mais loolu yàqul dara championnat ak ligue des champions bokkul bokkul de bokkul daal championnat moo gën a difficile que ligue des champions donc ak joueurs yi ñu am Mané Salah Firmino ak les autres daal xam naa dinañ si génn. loolu pour l'exig bon comme li sama coéquipier bi wax sànq rek. Euh, moom dama ne peut-être Leipzig la jox euh, ki favori mais il faut noter aussi que les grandes équipes ne meurent jamais. bien vrai que Liverpool mu ngi si euh, bien vrai que dynamique bu mu nekk stable quoi mu ngi si méforme on peut dire mais attention Ligue des champions la bokkul ak championnat en championnat les équipes sa connaissent entre elles sa se mais là-bas c'est Ligue des champions c'est là où les champions se rencontrent mais nag gëm naa ni bu fekkee match rek match match match man su ma doon joxe favori moom Liverpool laa koy jox parce que mun na bis bu mag te xam na li ko war. en plus seen seen supporters yi instant bi dañoo dañ leen mere leen rek lañ mën a def mooy ñu jéem a gagné match bii nii pour ñëwaat si form bi nga xam ne ñoom ci lañ nekkoon te il y a toujours Sadio Mané là-bas et il faut tout faire pour l'équipe on a confiance en di vraiment. di Liverpool mooy daanaka ñàkk na championnat Angleterre léegi li ko dese rek mooy concentré wu lépp lu mu am ci euh, Ligue des champions bi waaye nag na def ndànk bu baax a baax ci équipe bi nga xam ne mooy Leipzig nga xam ne mooy dauphin wu Bayern na ca Bundesliga ba pare dañoo mën a football. Liverpool la match la boo xamante ne dem ñëpp a nga ko doon xaar malgré Liverpool am na ay absence yu bëri gis nañ ne bii depuis Van Dijk gaañu ba léegi Liverpool dafa am sérieux problème si défense am voilà bon malgré da ngay xool lu ñu marqué encaissé ko. te Leipzig tam nekk na boo xamante ne équipe bu allemand la Allemagne ku leen xam-xam ne moom duñu bàyyi. waaw loolu dañ ko doon seen maam Hitler yàgg na du ñu bàyyi moo tax dina nekk match yoo xamante ni vraiment daal am naa yaakaar ne liñ ciy xaar dinañ ko gis dina nekk match yu am engagement match yu am détermination yu war a mën a neex mais que le meilleur gagne rek comme ni ñu koy waxee rek ci cadre sport la après. Euh, beneen pàcc bu mujj bi dalal ganu xibaar yi ci taskatu xibaar bi nekk formateur Ibrahima Bakhoum di analyser nag euh, tension bi am ci langue politique yi ci biirum Ousmane Sonko Ibrahima Bakhoum ak El Hadj Malick Ndiaye. Sud FM ganu bés bi. ñu ngi ak Ibrahima Bakhoum ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum. yow nag da ngay ja da ngay jàngale tasum xibaar. tey jii li ay di njàmbat def waxuma moo jëm ci mbirum Ousmane Sonko waxtu wi nag ñu ngi teg loxo ay ñoñam ñoom tam ñu ngi wéy di ñaawlu loolu fan la xët-xët gi war a mën a yem ci wàllu politique bi. waaw xam nga léegi il faut nga bu fekkee ne dara xew na maanaam li xew mooy ne ji yëngaltu amoon na ci dëkk bi ay yàqu-yàqu am ci. léegi ñooñu police la muy def mooy ne diw mi bokk na ci ñi ko def diw mi bokk na ci ñi ko def dem di seeti benn penn par jàpp leen xam nga dafay waxtu yoo xam ne jàpp par fekk nit ñi jàpp par benn benn mooy gën a yomb fa ñu dajaloo jàpp leen fa donc police noonu lay def si nekk dem na ba am ñu jàpp na ji ñii xëy bokk nañ ci ñi bokk nañ ñi yëngaloon dëkk bi mu dem leen seeti benn benn bu koy def nag la mu cay jublu mooy fexe ba bu ñenn ñi tiitee dal ñeneen ñi buñ tiitul tamit di def li ñuy def nii maanaam fi mu nekk nii di jël média yi di wax fu ñu mën a waxee fu ne yéen a ngi def nangam muy def nangam maanaam sexe ba boole nguur gi ak sénégalais yi li leen di boole mooy xool leen li lii du démocratie lii jaaduwul ñu ngi def lii dina def lii ñuy wax li ñuy wax ne jàpp bi sax mun nañ koo comprendre waaye li li nga xam ne moom lañ doon mën a nangu mooy li ñu ñi ñu wax ne ji noonu lañ leen def maanaam bu ñu leen jàppee ba yenn façon yu médital yi ak nu médital médital nit ki sañoo ko jàpp ba pare di ko médital ci noonu suñ ci biir démocratie fi ñu toll waaye. nguur gi tamit ay pexem lay def pour yëf yi dal pour nit ñi bàyyi ñoom ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy jàpp tamit dinañ àgg jamono boo xam ne dañ naan séew ak ñu bàyyi leen rek boo demee nag ba nga xam ne ji waxatoo waxi Ousmane Sonko ci maanaam dossier bi sam mu waaye yow nañ bàyyi niñ jàpp rek bu boobaa nguur gi dana moom it def ci sant li muy sant mooy léegi nañu bàyyi justice mu def liggéeyam maanaam amatu leen joti dem di yëngal feneen parce que fexe leen fii léegi nag ci biir blocage boobu ngeen toog fee ma jàpp ñi ni seen seen yitte mooy nekk dootul nekkati waxi Ousmane Sonko maanaam mooy ba tey boo koy wax yooyu Ousmane Sonko koy lal wax ji waaye seen yitte bi gën a jàmp booy nañu fexe ba ñu bàyyi ñi ñu jàpp bu ko defee nag ci biir loolu loolu ay façon tactique bu yàgg la fii la ci la nguur gi def ndànk ndànk ndànk ndànk di leen bàyyi par benn mais fekk na ci diggante bi ñenn ñi jot nañu toog wala manifestation bi jot na dem ba xam yàlla mu xaw a sàppi tuuti bu boobaa nguur gi moom loolu la ci bëgg waaye mën na jur leneen tamit jàpp-jàpp yi mën na dem ba mu yàgg mu jur loo xam ne ji nit ñi seen xol dafay gën a tàng ñu ko organiser wu gën a eh, nangu ne kon nag comme li fi nidee demee il faut ñu xeexe ko pour ñu xeexee ko nag ñoom yoo xam ne ji amul amul euh, gànnaay yi police am leen rek la mun defee mooy bu manifester fii te ëllëg mu de manifester ba fee dem ba day dem ba mu yàgg yi fii dajaloo te it même bu yi fii dajalowul ñoom tension bi muy créer rek am na nu mu leen di mën a arranger maanaam dañuy wax nañ ji fexe ba sa noon bu mu am jot wala boo fii baatu noonu amu fi waaye kujj a wujj fexe ba wujj wi bu mu am jot yi def dara comme ça nga yàqal ko rek dem nga a dem parce que bu bu su feexee sonal kon yow nga fexe ba bu féex loolu yëpp mën na see bokk donc ñaari benn bu ci ne bu ñu ci àggee fa muy mujj mooy nañ ji réew mi loolu mun na dem ci ay jafe-jafe parce que amoon na fi ay jamono yoo xam ne ci ay manifestation yu mel nii la ko doon démarré yii dem dem si dem dem si ji jàpp ba mujj gi loolu bokk na ci li nga xam ne ji ba ñu accès à l'an 2000 moo sonaloon noonu nguur gi ba ba ba président boobu ba candidat boobu dem ba nekk président te tamit lu ni mel moo amoon diggante 2009 euh, nañ jëlee 2009 ba 2012 loolu am su nekk tamit ñii mën na am ne xëy si bopp lañ jëm. waaye léegi nag lan nga yaakaar ne bu ñu ko defee jàmm dina war am mag dal amaat ci réew waaw pour dal am mooy rek leer na dañu mën nañu dem ba kenn ci ñoom sonn. maanaam bu fekkee nguur gi dafa sonn dootul ooti kenn. bu déglu woon tamit kenn deful dara mu ne ah, kon nag léegi nii la ñu jaaraat ci li nga xam ne moom mooy ooy dialogue bi comme ma xam naa ne nga ma laajoon sax mu ko defee ñu jaaraat ci dialogue waaye nag bu fekkee dañuy waa kër Ousmane sonk bi jàmm ji am sax bu dara xewul ñoom bokkuñ ci dialogue bi. Dakar ak bu ñu nee ba ba ba coow ba coow li dikk ndax bu boobaa dina leen ci mën a yóbbu ankay mën na am bu fekkee da dem ba mu yàgg yow nga jàpp ne jàpp teguñ la fenn mais nga wone mouvement bu tax bu ñu ne ako ah, léegi nañ ko sóoraale ci suñ gépp bu bi évidemment déggoo mun na am waxtaan mun na am du loolu waxtaanu nañ nañ waxtaan pour nga dugg fii wala nga bokk ci non non maanaam nañ dal rek pour réew mi bu boobaa loolu mën na am. continuer nag di def seen politique kenn ku nekk day wax li ngay wax mais fekk leen daal am na loolu mooy benn pàcc bi beneen pàcc bi ci nekk te mu mën a am tamit mooy ne yëf fi àgg foo xam ne ji kenn nangootu la déglu kenn kenn óolootu la déglu kenn kenn óolootu la kenn ah bu boobaa yëngal bi mooy nekk ci dëkk bi loolu moom du lu ñu gënal. Ibrahima Bakh ñu ngi sant la gërëm bu baax a baax. allez salut papa bien. merci et bonne journée. Euh, waxtu wi dem nañu. ñu àjjandiko ba xibaaru guddi gi ñu gën ko yaatal jéggaluñ ci ñu desoon ci ligne bi ci kanam tuuti euh, sud éducation lañ cay toftal buñ ca noppee 18h eh, ak Aïssatou Gueye ba xibaar yi ci yaatal lay doon kàllaamay tubaab jaajëfal bu baax Assane Thioune moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mu ci biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér laa fekkeek tal yàlla lañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.